asalaamaaleykum suñ moodu Kara maa ngi lay nuyu man la Abdou Samane Mbacke Chouaïbou euh, dama gis loo xam ne euh, gën a ma woon te neexuma it te neexut ñu baree bari bari ci murit yi ak ci bokk yi ma bëgg nga teel cee xel teel a dellu gannaaw ndax ku la yéene jàmm ku ne du la ci far mooy xaside yi ngay def ci tese yi ñi di ko politique yi loolu booy moo ko teg ko ci suuf loolu moom kenn du la ci far ndax dafa am loo xam ne moom rek la yoon wi dese lu ne nit mën na koo def ñu bakko ci waaye boo fa bee xasida yi yi di ko def ci tese ñi di ko politique yi moom day mel ne fayoo yoon wi lay loolu moom ku la wax dëgg dëgg dëgg dëgg danga la xamal ne neexut kenn ndax yi ñëpp dañ ko bokk xam man ñoo ci yem maag yow Sëñ Tuubaa day sa maam di sama maam ñoo ci yem képp xasida yi dama di murit nga di murit ñoo ci yam képp sañoo ci lu ma sañut sañu ma ci loo sañut waaye ñëpp dañ koo bokk dafa am luñ ci sañee def ak luñ ci sañee def xasida yi jàng ak denc ko ak war maal ko mooy li ci war murit yëpp waaye am maa amaana bu politique desee yow politique al nu la neexe ak ku la neexal sañ nga ko am nga ci droit waaye nag di ko def ci tiset di ko joxe ngir muy dugg ci mbirum politique loolu moom laa lay xamal ne gënut te bay ba nga teg ko fi mën a jural ci coowit yabul sa bopp képp la ak dolli dolli sa bopp ay noonu bataax tax na man dama ànd ak yow ci dëgg te lu ma gis loo xam ne gënut ci yow ma seetlu ko wax waaw yooyu moom amut solo te ibamu teg ko fi suuf